internet euh, Média TV Univers Info TV ak seen Média TV day nekk chaque jour mbégte contentement di ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di actualité actualité nag kenn du ko wax lu dul làmb nga ci jiital moo tax ñuy seeti ñi nga xam ne ñooy acteur làmb yi xam nañ ci dara ndax boo xoolee ki nga xam ni moom laa dalal fii def na fi euh, loo xam ne jéggi na dayoo ci ay révélation yoo xam ni def na ko ndax boo xoolee mi ngi wax ñiy daal à chaque fois te boo xoolee bokkut ak ñi nga xam da leen di yóbbu vaar ci réalité bi dong lay dox donc moom laa fas yéene ñëw ak moom waxtaan su habillement bi nag jarul daw parce que nee na gaa yëpp ko laaj yaay noo def. maa ngi fi ngi lay ziar bu baax di ziar ñi nekk ci saal bi yëpp. waaw di ñaanal suñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal ñëpp jàmm di jël nuyoo bi di ko nuyoo ñëpp rek ñëpp pour mu gàtt parce que boo limee mën nga juum nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp Euh, balaa ñuy euh, xuus di jëm ci benn question damay wax habillement bi lan moo ko waral tey parce que gars yi yaa ngi leen di tiital. non ku ko gis man nga yaakaar dañuy sëmb gaynde man nga yaakaar dañoo bëgg bës man nga yaakaar yëfu dof nekk xam nga doomu aadama ku nekk xelam si lu muy dem. mën yaakaar nga yaakaar yëfu dof mën nga yaakaar bëgg nit ñi ragal la tout mën nga xalaat loolu mhm. mais man li ma àndal su ne ma woon bul see yére sax duma ko sol ni ma soloo nii ñoom ñoo ko bëggee nii ma defee ko nii mas naa fee def benn émission sol benn yére bu am xaalis yëpp ñoom ñoo ko bëggee woon noonu ma defee ko nii habillement bi tey ñoo ko laajaat ma defee ko nii mm-hmm. te boo gisee lii nii daa am lu ko waral mm-hmm. Euh, léegi nag loolu ko waral buñ sañoon nga daan ñu koy leeral fii ci biir univers ak média ak ki nga xam nga vidéo fépp lay daw te Yaay Fall nekkatul Yaay Fall Ndakaaru Njaay wala Sénégal international mhm. koo yaakaar ne xamul Yaay Fall xam na Yaay Fall mhm. may wax benn affaire mooy mhm. ñenn ñi si ñenn sëriñ si laay wax nañ bàyyi comme làmb di am ñëwagul ñuy wax di waat di dugal ci internet bi donte mën nga xam sax mais la nga xam comme ni may def man ni may def ci mhm. lamb sa ci la ko ndika defé mané samba damay def vidéo waye du ma ko dugal suma defé vidéo tay la samedi mané ko suma koy def bëccëg la kay def ñu xam ni luma def ni defuma ko ay trucat defuma ko ay dir ci mbedd bi la kay defé ma ko danga ma dencal bu combat bu jexé nga xam na dama koy dugal am naa ci droit. parce que tey mën nga def vidéo nga gis dara nga wax ko sax nit taf la saaga la avant combat bi ñu supporter. xam nga nit jël mbërëm ay at. di ko sanga di dem def sport di ne def lu ne am yaakaar. nga taxaw na ko dañ lay daal. déjà dagg nga ay moraaram. yow humilier nga ko daal noonu laa ko mën a waxee. mais dangay bàyyi yàlla andil surprise am. loolu sax moo gën nga xam ne lii yàlla moo ko andi mais bul def nit di def dara nga jekk saa si rajo woon na bi combat bi ko xawee na ma damay defal interview ma ne ko après combat bi laay def moo ngi nii. Mm-hmm. ak keneen ak keneen lu ma woo si internet bari na man su ma waxoon ñëpp xam na ne combat bi jeex na. Pawlish Mbaye moo gën a réew ci Sénégal. Mm-hmm. daf ma woo téléphone mu ne ma yaay faal kan mooy daan mu la neexoon mën na ko wowaan ma def ko mairie bu ñëpp di xool. Mm-hmm. ma ne ko mënuloo moo koy daan. Mor Saliou moo ma ko jox téléphone am si kanamam. Mor Saliou defoon na émission bi nga doon laajte sànq. dakaar Buzz am na 6 mois presque. émission boo duggee YouTube boo tapte Yaay Fall di nga ko gis. la ma si waxoon lépp virgule denc ci. waaw parce que bi ñu koy seetaan yaa ngi naan Amina Poté dinañ ko takk te ki koy takk day nekk kat en plus tamit ku am xaalis lay doon te bi ñu koy wax yaa de la de 6 mois. ba pare mi ngi Europe boole ko si wax day yegg man. sama seet lu tax muy la dama di këtti maanaam dama lay wax lii lii lay am lii lii lay am lii lay am. vidéo bi bu ma koy def boo seetloo sama téléphone sa da doon woote man xam nga lan laa taloon Zizame laa ndax man am naa fulla ak fayda bu toll ni ku ma waxut yaay ñaanal ma duma la ñaanal ku ma waxut yaay seetal ma duma la seetal ful la am bu nu bokkoon ndey ak baay gëmoo ma nga teggi ma fi dem feneen duma la lijjanti. man yàlla moo def ci man loolu di nature noonu laa mel. Mhm. toog naa ay fan man liggéey xaw ma kañ laa gëj a toog sama néeg bi seet. clients ma envoyé xaalis dama ko kenn mhm. mais xam nga lan moo ma ñoroon Ziza am ndam. Mhm. man ci loolu laa doon dox fa barki Serigne moo tax euh, choix boobu nga bëgg moom mu am ndam uniquement. yu bëre ma jox ko leket gi. leket ko amut ay millions yu bari doo ko laal pour te diin ma wax la lool nag. bii borom doolee koy génnee sama kër mais moom saa yu bëri ma jox ko xam nga dama koy jox mhm. dafa ma gëm xale laa jigéen laa su ko neexoon mu ne jigéen bu ma mu ci góor ñi laay dem mhm. déjà su ma yeboon ne ku waxal yàlla yow mi ba ci yow mhm. bi ko yaay fal commencé di ñaanal lañ ko gën a xamaat dañ waxal yàlla rek déjà bu ñëwoon ci làmb ji taxaw zëm léewaatawul bëriwul sax day daan loolu man maa ko assuré ma ko yóbbu wax ko barki salaatul faate ko mbaam bi ba tey teguma ko bët seetaanu ma ko mm-hmm. seetaan laaja sàmba dama kaaw ma ne ko sàmba Ziza daan na wala lum daane xooluma ko xama lan laa doon def sama liggéey mm-hmm. xam nga lan moo jafe gëm doomu aadama sénégalais xam nga kan lañ gëm dof yi leen di nax mm-hmm. na si internet bi wax lii wax laa dangay seetlu benn mbir yaay fàll mosuñu koo vaar ndax lu muy wax da koy maîtriser daf koy xam ñaata at maa ngi ci média ñaata at ñu ma mag foofu nekk ci internet bi lu ma à chaque fois duma saboote benn sëriñ parce que ku ne la nga xam ba na yow yaa ko xam yaa ko xam mais man am naa droit ne man yaay Fall li may def dama ko maîtriser dama ko xam te dama ko mën. Mhm. leneen la keneen xam nag loolu yow yaa ko xam. Mhm. parce que ku xeeb xam-xamu jàmbur da nga xeeb sa bos. Mhm. yàlla da kaa may may ko may la. donte nag liggéey du ñàkk ñoo xamante ni mënuñu dara bokk ca di salteel. loolu ba ci way ak bëree ak lépp si am. dina am ñu si bokkul mais bu ne sëriñ amul sëriñ Sénégal am nay sëriñ yu mën. waaye barki alxuraan li may waat bu dul dëgg yàlla bu ma fi yenn. Mm-hmm. punkal bi nga xamante ni moom la ñëpp yaakaar sax ñu daw di ko wëri lu mu def tey bu ma xëyee fajar dañ ma koy wan làmbi Modou Modou ak Ama Balde bi man ki ma doon ñaanal Pikine la dëkk waaye moom moo ñëw ma koy ñaanal Ama Balde boo jëloon vidéo nga wan ko naka ndax xam nga yaay Fall danaan la waaw muy mbër beeg muy waykat bi ñëpp a ma xam xam ma ñëw moo fi ne ak xam ma bañ a ñëw ak ba pare di dute samay mbir ak insister mm-hmm. man ku dute samay mbir wala nga insister yaa faal man na wala xam na barke alxuraan ma duma la te sama loxo bi duma ko yëkkati muy jóg ñetti at laa feebar sama maam bu ne la woon suba ngay dee bu yoboo nga dagg sa sàngaay te xam ne dangay dee man xale laa li ma wax jour man dama naa man xale laa mm-hmm. su ma neexoon ma dem liggéey ji leneen porte yëpp am naa ko bu khas, amna am ko kon mënoon naa continuer ma tok sama xaas baña liggéey mais luma yalla natou la mom man ko maîtriser ko xam ko limay wax ci réew mi ben sëriñ du ko fi wax ma répéter wat ko luma wax si berebe xam nga tay mooloo Ama baleni, sakrafetna, sax rafetna ndax galaj motax sa Ama daan ko daan mais daan bu gënoon a ñaaw bi la ko ndoroon a daan ma wax leen lol tay mhm. buñ bëre ci geewu sa da kay daana mais ak ni modlo ñëwé tout clean maanaam solowul dara deful dara du dara lu def te li ci gën a doy waa ci biir combat bi ci biir euh, stade bi la te dañuy faral di wax loolu du ngemb fa mhm. gis nga nit gis nga zisamee mhm. ba muy dem di bëre moom leer na ko ne day daan ndax xam na ki ka ngemb Modou ba muy dem stade leer na ko ne day daan ndax xam na ki ka ngemb mais ak anam bi mu du du dara ko ci stade bi Moodu ngeen gis ci géew bi mais Moodu barewul Moodu ngeen gis ci bëre bi mais dem leen ngeen laaj Ama Baldé lii may wax Ama nekkul dañ ko xabtal billaahi wallaahi taalaahi Ama Baldé fi ko Moodu Lo muur bu ko dindiwul pour mu amati combat bu normal sax day jafe Moodu Lo na dem dindi Ama Baldé fi mu ko muur lu leer laa lay wax Mm-hmm. ama bu doon mbedd ak mbedd bu tasee ak Modou Modou Lo est-ce que moo mën ama mënu ko su ko dóoree da koy dóor ba mu bëgga dee lu leer laa lay wax man daal chaque fois dama naan man su may wax du ma waxee far damay waxee baatin. Mm-hmm. ak gis-gis. mënuloo sëriñ bi koy ñaana yor kurus gu mag kilifa la nag kooku lu mu lay jox sunguf ak reen sax du bari kurusam googu moo gën a gara xam-xam nit yóbbu na nit ba Europe liggéey ko. barki alxuraan bi ma koy toj damaa yëkkati 2 millions teg nit fii sama saal ma jox ko 2 millions ne ko demal ma Europe nga tojal ma liggéey boobu. billaahi wallaahi taalaahi liggéey dañ la yóbbu fu sori jël kurus werd la téye la werd moo gën a garaaw yenn damay ñaanal nit fii te duma ko jox dara fii laa koy toog ñaanal ko. ama dina jàmbat métitu bopp. waaw. ama bi muy génn këram sax moom nekkul dafa mel dañ ko xaptal ba xabtal ba moom xamatu ama gisul xam nga mbër bu daanoo nag lu mu wax dañ naa waxu mbër bu daanu la mais ko nit bu concentré woo dina mën a bëre normal mais Modou moo ko gënoon a xam ne bu ñëwee day daan Ama Baldé gis nga soo gisee may wax ba naan Modou day caxabal Ama xam nga Ama Baldé moom mboot Modou Lo mm-hmm. te Modou Lo bu dugalutoon tànkam bi mën na daanu parce que dara desatul foofu mu déggee ñu naan ma ne caxabal nag dama gissone Modou ni mi lonké Ama de tankam bi man dama ko gissone kon mën nga giss mbir ba ci ben instant mu changé. man da sama bos doo changé bosu keneen nag moom xaw mais man lima giss gis giss gis. Mhm. mais ci combat bi dafa bari ñu ay seetkat yu bari yo xamni var vaar nañ leen. Euh, wax nañu ay affaire muy fo ku ci melni Mara Niass wax na euh, tamit am na lu mu ba ci ben instant mu changer waaw parce que li ñuy wax dañ ko maîtriser wul man dama ne sàmba barke alxuraan lu mënti xew Modou Lo day daan lu mënti am muloo Lo daan loolu moom yàlla moo ko def yàlla nag du ma man du ma kañu du ma baax du ma nam yàlla moom ma man di ma wan may gis di wax dafa réew mi situation bi lu muy tar tar tar yëpp bu ma ko réglé wu du réglé wu man maa la wax lii damaa toog sama ruq nag toog sama koñe dal lu ma lax chaque jour ba 4 heures du matin jotee punkal yëpp fii la ñuy gaare du ma leen vidéo du ma caméra du ma wax parce nit booy liggéey daan def sutura dara jaaxaloo ma ku ne ñëw na fii. Mm-hmm. nañ ñu géewal ñun sëriñ si